di la siyaare di la sukkal di la raamal di la gën a bëgg saa su ne saa su ne yaa ngi suñu xol fees ko del tax nga ba jàmbatuñu dara amuñu lenn lu nga xam ne ñu ngi koy gis feneen di ko ñee keneen moo ñu gis ñu ñëw waaye ñun ñëwuñu kenn sunu xol sedd na ci yow suñu xol sedd na ci yow suñu xol sedd na ci yow ñëw nañu nag tey jii fas yéene sanante gaw ay kàddu ay kàddu cant ay kàddu ngërëm ay kàddu jébbal gu bees tàq ay kàddu jaayante tey day li jiitu ci suñu wax mooy mbooloo mii yëpp sëñ Moussa Mbacke Mouhamed moo nekk seen biir xol xolu ku ci nekk li ciy tëf tëfi guddi bëccëg suba ngoon yow mii la kon mbooloo mi ay jullit ñoo fi ne jullit nag armam maanaam ngànnaayam weesuwul ñaan ñaan moom suñu borom da koo fonk lokk ci jullit lool ci jullit ginnaaw suñu xol bii sëñ Moussa Mbacke mi moo ci ne nanu maase ñun ñëpp ñaanal ko mu yàgg fi lool tànd wér ñun ñëpp nañ ko wax sëñ Moussa Mbacke Mohamed nañ ko wax sunu làmmiñ tudd ko tey bisum ñaan la sëñ Moussa Mbacke Mohamed yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jërë ngeen jëf sëñ bi de wax dëgg yàlla bu fekkoon mën nga ñu bett dañaan bett te nga ñu waaye lu ñu gisul ci rek ñu ngi séntu leneen lu ñu gis xam nañ ne ngaa jox jox ñu waaye wóor nañu ñun lu nu bugg li fekk ñu ngi sa liggéey bii dañ koy awee nu koy sunu jot dañ koy amee nu kawee sunu jot lañuy ñuy amee ñun ñëpp su xool sedd na léegi waa njaareem def nañu na ñaan def ganale nañ ñu toppatoo nañ ñu sëñ Baara mu nga fa woon ca saal ba président section cees mu nga fa woon président section Dakar mu nga fa woon section Kaolack mu nga fa ñeenti président section ñu nga fa ak ñaari représentant sëñ Moussa Mbacké Mohamed muy bu njaareem ak bu ak bu bu kawlax ànd nañu ak waa waa cees Ibra Seye ak li wër Thiès waa Tivaouane ñoo ñëpp ñëw nañ ci ñëw nañ ci ci convoi bi convoi bi dafa war nga ñu daw dimbali ñu woon ne ñu am convoi boo xamante ni ñun jàppoon nañ ne convoi mënta ëpp booba waaye ni waañ mel ci kër convoi ren bii bu daaw ba noonu la ci moom lépp ci seen dimbal ndax yow de ku lay liggéeyal lu mu bëgg li ñuy wax rek man man du ma wax sëñ Mbay Jaxate dama wax keneen man kii su ma ko xoolee sama xol day fees tey laa ko xool mu wóor ma ni mag ñu doon wax naan ki ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj. billaahi wallaahi dama ko gis xam ni loola kii moo tax ñu koy wax ko ànd ak ki ñu àndal lu ko neex laaj mu ngoog loolu maanaam dama lay xool rek yow sama xel dama lay xool di gis mag waxi mag yi mag ñoo li ñu doon wax sëñ Cheikh Mbacke góor moo ko leen ñu ànd ak seex mi ngi la dab 1er juin cinq bi sëñ bi wàccee booba la booba la ñëpp war a maase topp sa ginnaaw ñëpp waaye nag suñu boob mooy dogal li muy dogal am na ñoo xam ne bi faw ñu am ñu am fee am ñu dem fële léegi. ñu ngi ànd ak sañ jiili ana kër sëñ jiili Mbàkke sëñ jiili Mbàkke mu sëñ Cheikh Mbàkke moom sëñ Cheikh Mbàkke Sall sëñ Mbàkke Sallum wala sëñ Bara la da daan def caaro yi ak waa Taïf caaro yi saa yi ñu amee manifestation mu nekk fa sëñ Bara bu amee kenn ku ñu war a tudd caaro yi léegi dootul dem daan ko ko bi yaa nga fa demal ma fa léegi kon moom dina fa nekk ci sa tur di fa liggéeyal sëñ Tuubaa soxna yi nee nañu naa leen wax ni na nga dégg ko waxoon naa la daaw nag sëñ bi loolu damay jóg tuuti sax sëñ bi il faut nga sot tuuti tuuti fa nga ñu kenn dabatuñu waaye nañu nekk ci kanamu ñëpp xale yii yow rek lañ gis nga fu mu nekk nii waa social ak waa organisation dañoo wax ni paas bi dafa nekk jamono nawet mën naa metti léegi nu ñuy def mooy comme paas bi su nekkoon junni ñu ni koy ñëw indi deux mil cinq cent bu dee quatre mille ñu ne indi ku nekk na indi na indi deux mille nga xam ne ñu léegi si des ñëpp ñoo dem ci ay njóogu faalak ñoom ay sëriñ faalak bàyyiwuñu kenn kuñ dem nga jox ak sës tuut ñu ñu transporté ci nit ñi loolu moo tax bus yi fees del macha allah soxna Oulimata Kandji nee na naa la wax ni tey ñoom ñu ngi arafat ñoom ña jigéen ñee du yéen a ko wax yeneen a ne ah, nee na ñu ngi arafat ne ndax arafat lañ fay am gëm nañ ñu tey nañ ko am fii fii sax lañ fiy am amul fenn ndax sëñ Moussa lu mu wax fee ku ñu nangul la fii nag ku fi ñëw fanaan fi la ñu wax. Cheikh Moustapha du lambatu Cheikh Moustapha Bassirou Serigne Cheikh Dia Serigne Khadim Gueye ak mbooleem njabootug Serigne bi Cheikh Moustapha yàlla na nga fi yàgg noo ngi lay ci turu Fisal Mbadaan gépp te di la ñaanal yàlla mu yokk fan wi lool te mu ànd ak wér ànd ak dal ak ak tal yàlla na yàlla musal la ci cat musal la ci làmmiñ musal la ci bët bu aay musal na ci looleem luy yàqu lu waaye jéem jëme ci yow lu dut lu baax yàlla na ko ko suñ borom dëpp da nga mucc ca loola ak mbooleem koo àndal mbàkke noo ngi lay siyaar te di la ndokkeel tey fetliwaat sunu diggante ak yow di la seereel ne giñ naa ci sa jëm jii ne bëccëgu làmbaay ba bu taxawoon fii tey ku gëm sëriñ bi tey ñu rey la bii boppam séeréer de du ñibbi te waat naa ci sa jëm ji ne fii ma toog nga ne boppam sereer laa soxla bii du ñibbi ak yi ma àndal séeréer mbaa daan yaa nga nele góor ak jigéen mag ak yow yow rek la ñuy déglu ndax danga noo defal loo xam ne li kenn nattablu ko nu teg ci suñu bët ba fay ñëw ñeenti teen a nga fa yoo xam ne benn mënee su koo naan daa wex xat ne ko mbàkke damaa bëgg nga ñaan xiiwal gi dox ndox mi wala ngaan ci biir dëkk bi ba kër gu ne am ba fii nga toog noonee ma ko waxe la ko suñ borom defee tourné ba ba mu matee ca Banjul la 30 keroog la ndox ma dugg si tey saango kër goo dugg robinet nga ca biir di wala ngaan kon Mbàkke li nu bëgg ci yow yal nañu ko suñu borom defal saa yi nu toogee fii ne téeméer at yu dem yu ànd ak bëre dem rek atam ren mii bokku ci ma ca kanam la nuy limbaale te noo bëgg saa yi ñu toogee fa ngir ceeŋ saa yi ne bëre rek mën a dem. waxaluma section Kaolack rek damay wax képp koo xamante ni ba keroog ba Serigne Moustapha toogee fii ci kaw Serigne Baara toog Serigne Fallou toog mu xam la ni Ahibahil Khadim li nu soxati diinil xawim soxna Ajaratu Maam bu sa toog na ngeen xam ni maa ko sos. ci laa nekk te maa ko digle te koo xam ne maay sa bunt ci Serigne Touba moom laa la digal kuy samay kuy sa bunt ci Serigne Touba te digal la ko boo ci nekkee nekk nga ci sama digal boo ci nekkul la nga nekk yaa ca nekk waaye man lii laa nekk ci laa digle yaa ma ko waxoon yaa ñu ko waxoon fii ci kaw kon ñooñu laay waxal waaw waa Ahibahil Khadim li nu set diinul xawim ñoon laa fiy waxal waaye nag bay ci sa wequ tàng section Kaolack fa la ma yàlla boole te ma nangu ko te ànd ak ñoom ci àndin wu rafet Alaaji Taala Touré moo ko jiite mooy président section ba mi ngi nii toog sëñ Tuubaa moo wax ne taalib yëpp la doon waxal taalib yëpp adduna ko maanaam bi adduna sosoo bi sëñ Tuubaa ñëwee ba adduna tukki am message la joxe boo xam ne taalib yëpp la ko boole te mooy la tafaalu shay'an bi gayri izni fal idnu shartun fi qabuli shay'i sëñ Tuubaa nee na yéen taalib yi maa ngi leen lu ngeen di defati na ngeen ko déglu ndigal bañ jox leen ndigal ngeen ne ci ndax dafa bokk ci sarti ñu nangul la li ngay liggéey nga nekk ba am ndigal dafa bokk ci sarti ñu nangul la nga nekk ba am ndigal loolu sëñ Tuubaa ko wax loolu nag nee na kon na seen xel dal baax ndax liggéey bii nee na ndigala ma wax na ko waxati ko waxati ko kon nee na ndigal lii mu digle di ahibbaul xadim li nusrati diini la xawi te mu yëg bu wér ni kenn ku ne yaa ngi koy damm sa bopp la nga la nga man ak la nga mënul yaa ngi ko ciy def bu leen sikk sàkk ci ne day kenn ku ne boo taayalee sa loxo sa rëddi baaraam yi ni mu la leer wallaahi asim noonu la ko mbir yooyu lu gën a leer mbir yooyu la ko gën a leer li nga nekk ci la jël ak foo mën a ne ak loo sori sori ak loo ruqi ruqi boo nee ci ndigal bu baax te dox ci te xam ne mu ngi yeesalaat ndigal góor ak jigéen mag ak ndaw mbay bayuñ jan gis na jëf yi bu baax a baax leneen la ca des nag nee na dañuy fàttali rek fàttali goo xam ne ci boppam la ko tàmbalee ndax dañuy faral di wax ne lépp loo xam ne moom mi digle na ko nun taalibe mi kenn ku nekk ci xoolal kenn ku ne xoolal loo loo phrase boo dégg loo dégg Cheikh sa wax rek fi nga toog bala ngaa dem xoolal def na ko bu yàgg tama nga ci te moo la ci nag loolu nag mooy seexu murabbi dëgg dëgg seexu murabbi joxuñu yoon wa ne ma nga ne wëlbatiku waaye daf caa dox nekk ca kon lépp lu mu digle ma nga ca te moonu man ca lool kon boppam la ci jiital kon neex naa àndal ndax ku xam yoon wi te ñeme ci tey dem bu nee la kaay ma yóbbaale la war ngaa sant baax a te moom xam na yoon wi ñeme na ci te mi ngi dem itam te kenn mënut a téye mu àgg fa mu jëm kon nee na mi ngi leen di digal di digal képp kuy dégg suñu kàddu ñu sax ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla kat doon na loo xam ne mënu fi indi mënu fi bay bëgg na lu fonk lool wax naa ba tey ci ay jotaay mu wax ñoom ñooñu ëmb ba ñu yoroon ñu tax ñu teg ko ci loxoom kon ëmb boobee dara du ko rax na ñëpp xam loolu sax ci jàmm bu baax dimbalante sëñ bi dimbalante gi ñor na ko lool xam na ne ñoo ci de waaye nee nañ nañ ko gën a fonkat bu ñu delloo ci mbooloo ku mat a dimbali ku ne nañ ko dimbali ca ca ca fan gañ ko war a dimbali ak lam laaj ci wàllu ndimbal nee na nag lu xam ne kenn ku nekk ci noonu bi ngay gane adduna suñu borom waaye na la juróomi mbir yoo xam ne dañ laa gàttal waaye nag mu toftal ci juróomi ñoo lay gunge juróomi mbir yi di gàttal ni nga leen di bàyyee xel nee na na ngay bàyyee xel juróomi yi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw yooyu nag di la gunge juróom yi di gàttal mooy yem ba ca jiitu mooy dalay jox kat poids maanaam ci xéewal la mi lu tolloo ak yow ñeenteel ba mu mel fiix maanaam temps boo mën ne defe dara juróomeel ba sa bii mu may ko mu dund ne la aj juróom yi ni yoo xam ne man lay soog ma jox sallallahu alayhi wa sallam nag dikkaat ci hadis andi juróom yooyu nag wax ne leen koy bàyyi xel ndax bu ci ne dara da ca jox sëñ Tuubaa wax na ko ca tasawdu sifa waxtanimu xamsan xubaylal xamsi kama bihi amara xayrul insi juróom yàlla moo wax ne sa ndaw gi la yàlla jox kattan gii mënul jox comme ni ko Cheikh Moussa Diop waxee léegi daal di bajango waa ne noo ngi amul wér noo ngi no nga am kattan na nga fexe ba kattan googu la suñu borom jox ak sa ndaw gi na nga xam ne ak ak mag a ngi ñëw ak mag ak mag gat a ngi ñëw te boobaa la nga mën a duutoo ko mag kon kon tawféex yi doonu ndaw am nga ko waaye nag li koy gunge mooy ak mag gat a ngi ñëw te la nga mënoon ci ndaw dootoo ko man bi ngay doonee mag kon na nga gaaw góor góorlu ci jamono yi la saa mën joxe ak ndaw loolu ci mën ci lu baax balaa ak mag a ñëw beneen bi ci def mooy wir gi la suñu borom jox ootal ak wéradi ndax ku ne xam na ne wér ak wéradi ñoo am boo demee ci hôpital yi da ngay jàpp ne fenn kenn jóg kon yaar yooyu am kon boo sëppee say tànk ni alhamdulilah daal di yëgoo dara gaawal loo mën ci baax rek nga gaaw def ko ci wér googee te xam ne suñu borom da koy am la te ba ko soobee mu teg ci ak wéradi te xamu nu koy def te yàlla daa bari coobare beneen bi ci des mooy koom-koom mi la suñu borom jox mu tolloog yow ak lu mën a doon fekk caa sa biir yàlla taxawal ci ëtt yi taxawal ci day taxawal ci dimbali jaamu yàlla yi ak loolu lu mën a toll boo xoolee da nga gis koo xam ne yaa ko tamit loolee nga dimbali ci boo ci mën a dimbali def ca lu baax ndax suñu borom ba ko soobee mu fabaat loola ba say loxo dara du ci nekk ndax loolu coobareem te loolu ñun ñëpp teg nañ suñu bët koo xam ne situation meloon na noo xam lu yéeme yéeme mu tolloon foo xam ne bu kii maa ne la waaye dama dama dama def bañ naan ndey sax te loolu du ak yaafusam waaye day coobare yàlla mi nga xam ne moo naan la am bu ko neexee mu ñu indi kon bu nee la am na nga gaaw góorgóorlu ba def ca la nga beneen bi ci des mooy péex mi mu la may nga am as njot mën a jóg dem mën a wax mën a tëdd mën a lépp bu boobaa péex boobu ak temps boobu gaaw a góorgóorlu ci temps ba def ci li nga war a balaa xat-xat yi ñëw balaa xat-xat yi ñëw xat-xati jamono ngi fi yu bari yoo xam ne mën naa dem ba la bala nga doo ko mën def kon foo amee occasion lu néew néew rek ci am piir rek gaawal rek prof loolu ci def ca lañ jox def ndax sëñ Tuubaa kat daa mos dajale saaba yi ne leen lu ngeen di waajale bis pénc ba am ca ñëw ne bëri na ko noonu day mbàcce nañ koy waajale mooy saa buñ xëyee jàppale duñu mu ne bismillah mat na ko rek waaye man ahmadu ni ma koy waajale wóote naa ak ni ngeen koy waajale man ahmadu ni ma koy waajale mooy noyyi bu dugg rek ma jàpp bu génnaat ma gaaw lu ma ci man def balaa bu génnaatee di di sama njëriñ su xoolal la boobu far noyyi bu dugg damay jàpp ne du génnaat ma gaaw ci man ci diggante boobu def ko moom diggante noyyi ak morom jël ci la daan liggéeyal yàlla yàlla na ko yàlla fayal xëy na kon sëñ bi neen loolu moo tax waxtu bi lu am solo waaye dundit bi ngi fi te am na la ñu topp mooy adduna daa am fu mu yem te ku nekk adduna rek sabra am na fu mu la yàlla faxal bu fa accès bu boobaa bu la soxlaa daf lay fab kon nag nekk gi ci adduna di dund na nga ko def moom itam jumtukaay boo xam ne da nga fas yéene liggéeyal yàlla kon yii yu am solo la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la sallallahu alayhi wa sallam am na ko Sëriñ Tuubaa am na ko téere bi ñuy wax tasawuf si xaar di ko dénk ndaw yi di ko dénk jigéen ñi kon nag nan maas taloo lépp boo boo ko kon nag nee na nan nan nan nan nan góorgóorluwaat fekk dafa tax saay bëggante te yem bi taalibe day yem buñ nee la fii la nga jàpp ne foofa buñ nee la fële la nga ne fële loolu rek noonu nag am nañ tawfeex yi te kenn ku ne ci mën a watte fu Cheikh Moustapha di fii la nga mën a watte foofa kenn ku ne ci mën naa watte fu mu ne fii foofa kon nag loolu yi mun wax nan ko téye bu baax ngir jëmmi Sëñ Tuubaa la ñu def suñ neen guddi kii ñu dëgmal suba na ko ñëpp waajal ci pas-pas ci pëstéef ci yére du kawe ndax Cheikh Moustapha day bis bii déwénee na ci loo xam ne digg ci loo xam ne kenn du ko xam fi ci àdduna li des ko karfati fii ci àdduna ci ay tawfeex ëllëg bu ko nit ñi xamoon teel bi yëpp xam ko jullit ñëpp xam kon tey ba Ndakaaru wax àll bi sax nit ñi dañuy dox ngir bëgg France fii suuf Cheikh Moussa moo wax kon nee na bu subaa nañ ko waajal ci xasaay bi ci alxuraan bi ñu daje fii ànd ko ak moom sëñ bi du saa dajalaat digle alxuraan daanaka digle xasida yoo xam ne sëñ bi ne mi ngi ko fàttali muy jës ko xolóol Mawâhibou Nâfi' Muxaddamatul mu xasida ak miimiya Cheikh Moustapha fii ne laa toog ko ci kanamam di ko jàng moog sëñ bi Samba ñu daandal jumaa ji ñeenti xibla yi genn xibla ga ci penk waaye jës moo fa laa toog di jàng wetu nday jor ko waa Mawâhibou nekk wetu sowu gi waa Muxaddamaat nekk wetu wetu jii ji wetu gànnaar waa miimiya nekk waa alxuraan ji mu séddale leen ci biir jumaa ji ci biir barabu sëñ Tuubaa ak mihrab yi jullee ñu ne ci kaamil bi ba bët bu ñu noddee ba julli Cheikh Moussa jàng discours ba yow ñu da bu ma saan yewee nag danaa wax ne loolu yi ñuy wax saabu day ni mel ci tilim nu ko rob la bis bii mel ci bàkkaar ku mu fanaan bu bët set bu la neexee bay bu yëngu nga xam ne seen nga wecc say bàkkaar nañ ko fonkaat ci noonu ci alxuraan bi ko ci fonk ko ci xasida yi dundal guddi gi ba bët ndax gaa yu baax yi xam ne Cheikh Moussa wax na ne gaa yu baax yi doon gunge Sëñ Tuubaa al Madaw bi mu wàccee liggéey ci njaar 1927 ñu di ko wëndi nga xam ne ñoo ko gungi ba ci jumaa ji bu bis boobee delsee ñoom ñooñe dañuy ñëwaat ci guddi solo ci mbedd yi solo ci kër yi képp kum dajal defal la tawfiix defal yërmaande joo xam ne tàqali ko ak yow mukk loolu nag gërëm gërëm la sëñ Abdou Samb bu suba la te suba ci guddi la ñuy wàcc kon kenn ku nekk na nga waajal sa bopp na nga waajal sa bopp bu baax a baax bu ëllëgee ngir yooyu yëpp mi ngi sant ñëpp nag di leen gërëm di xam ne seen pas-pas ci moom yéen sax xamu leen dañuy jéem rek waaye moom mi moo xam dëgg dëgg pas-pas yi mu duyeel moom moo ko waaye rek ni mu ko faral di waxee ndax xel yëpp dal rek ndax sëñ Tuubaa daa bis si njaareem mu toog ba yàgg mu woo ay mag ñu bari waxal ñoom ba yeewee leen mu woo kenn ci bëgg néeg yi ne ko waxal mbooloo mi ne la suba ak ginnaaw suba fekk fii mu bu fi kenn jàll kooku dab nit ñi ne leen tedd ci nee na fii moom suba ak la ci topp la ci topp na ngeen ko waaye fii bu fi nit ñi xëy ñëwaat sëñ bi dégg ñu wax mu ne ana ma doon ñu ne ko am ah, mbooloo mi ñëw xanaa doon xanaa dañu leen wax li ma leen wax ñu ne ko ah kay mbàkk ne dellu wax leen leen dama leen woon ñu dellu waxaat loolu nit ñi jóg tëgg saan jot ñu del si wax mu génnaat waxaat loolu kenn ci mag ñu baax na ko am mbàkk ah moom de ni ngi ni rek xanaa bëgg la rek wax na ne que bi bi ñu wax loolu sëñ bi def na mu yëkkati ñaar loxo ba ci kaw mu ràbbali baaraam yi danañ alhamdulilah rabbil alamin ndax xam nga suñ borom maral ma mbir yi ku mënuñ ma waaye mu loolee mooy lii suñ man xam ne suñu borom maral na mu ak moom la duñ ko bàyyi te duñ bàyyi loolee moo fi nekk ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom kat maral na maa ngi ni moos ba ndax mënatuñ maa bàyyi rek ci loolu da ngeen defee ne la yem mooy dox ba léegi ku ci yàlla dugal war ngaa sant yàlla loolu waa fi nekk ba léegi kon na ñëpp maa fi ñaan Cheikh Moussa Mohamed mii na gudd fan gudd fan boo xam ne bu kii may la doon bu kenn mu sëgg billaay buñ ko ñaanee suñu borom def buñ ko ñaanee suñu borom def ko de au ba jur may sikk fàkk na ko ñëpp def mu seen wér wi gën a mag ci seen wér mooy na ko saafara bay ba mu soxla te wér wér ba ne rek ba li bëgg lépp mu liggéey te nun nag moom nan ko bàyyi suñu bopp rek nan ko bàyyi suñu bopp rek kenn koy dee sa laaw fa nga nekk la war ci yow ci sa mbuus dana ko duy moom fees boo doon amul benn wér na nekk ci ndigal li te bàyyi ko ak suñu bopp xam naa daal nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp soxna yi nag danaa ci dël siwaat ndax day faral di wax léeg-léeg ci yu bari ne gis na ne ñaare fi fi mbooloo siyaaree bi su tey bi yu dul bi su bi li ci ëpp jëwrin yi daañu ko seere daañu ko seere seere su mag ci soxna yi ci jigéen kon nag loolu na ngeen xam ne dégg na ko bu baax mi ngi leen di ñaanal yéen itam ñaan xaas kenn ku ne fu muy liggéeyal yàlla yàlla ko sa borom defal barke barke bu yaatu defal ko fa xéewal defal ko ndaw ñi defal ko mag ñi defal ko képp koo xam ne bëgg nga lu baax ngi ñaanal itam nag jullit yépp nag nii mu ñaanal nag nit ñëpp xam ne jullit ñëpp lay ñaan ñëpp la fàggul nun nag dan caaraw ndax noo noo nekk fi moom waaye kepparu lislaam yëpp la dara nee na mi ngi ñaanal jullit yëpp kon na ñëpp maase taalal seeni loxo te taatan ndab yi te xam ne insha allahu dana ko duy ba mu fees dell ndax sëñ Tuubaa moo waxoon ne zurufi mahan wajatuha xablu lin nabi wa kullan bi ma faaxal munas saara sama ndab yi daal baa ba mu ne ma waaw góor ne ma taalal sa ndab ba ma ko taalalee duy na ko taalaloon solo te fasaaleel koo am ku nekk ci kaw suuf ak ku ne ci biir suuf ñoo ci ram ñoo ci yem na ñëpp maas taalal loxo yi mu ñaanal suñu aajo faj ñun ñëpp ba suba ak jàmm nag li mu wax nu maas dellusiwaat ci bar bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillah